donc Babacar ñi ngi ci ñi ngi ci de da ngay delloo suufu jàmbur yi Babacar delloo suufu jàmbur yi Babacar yow mal xëy am am na yow Babacar boo weccee ko leer boo lëndëm boo ko jëndee leer boo yeggee yow mal am ña lay tàccoog ña lay yuuxu ña ngay doo foofu doo fa conférence de walla yow mal xëy am doo fa conférence comme ni nga defee conférence ni woo journaliste yi ñu posé la lu la neex foofu nag gis nga à la place des journalistes xam nga ñu fay ne ay ñoom malaaka ñoo fay ne ñoom malaaka ñooy taxaw waaw yor ay cours yoo xam ni bu nga dundee ba ba ngay dee mosoo koo gis waaw di la laaj sa biir bàmmel rek la boobu xam nga journaliste yi ñoo toog di la poser loolu la neex ngay arrogant foofu nag malaaka yee taxaw nag ñoom faale wuñ la de ñoom looy jaay ñoo la ko ëppale looy jaay muy doole muy am am muy lépp looy jaay rek muy financement muy lépp ñoo la ko ëppale te yàlla la yoon dam leen wax ak sama jaam bële tey la tey ñu bëree fi de ñu bëree ñu dul jeex ba ci sa waajur bu góor tey new fi <laughs> ñu ko fi jëlee ki ko fi jëlee moo la fiy jëlee te boobaa nag dinañ leen dina la laaj tamit ah à la place des journalistes malaaka ya taxaw ña lay fas yéenee nag laaj na nga def suufu jàmbur ya nga këf jaay doole waa wut sa këyit nag am sa titre foncier waaw bàyyi leen foofu noonu ñoom ñu nekk ci misère ñoom ñu nekk ci galère nga bugg a ñëw am na ñuy laaj maa ngi dégg Babacar di wax loolu Babacar Ngom Sedima naan waaw Casamance sax woo nañ ma ne ma kaay fii kii waa waa nañ ma ne ma kaay lu tax demoo xam nga lu tax <laughs> xam nga Ndingler mun nañ mbuur la nekk njaga njaga ñaaw xam nga lu tax parce que moom Sedima ak mbuur boo boo toppee autoroute à bi bu bu bu bu Gérard n'est-ce pas vite nga yegg te nengaleer lan la fay lan la fay bay ay pomme de terre ay salaat la fay fas yéene bay pomme de terre salaat yi nga xam ne da koy mën a àndal ak ginaar gi pour tey sédiment boobu mu euh, li defar fa ay ginaaram ay alimaam bu leen reyee pour yóbbu ko ci KFC bi mu war a ànd ak salaat war a ànd ak pomme de terre pomme de terre yooyu yëpp loolu moo tax mu ne da koy bayee fu jege nga xam ne oto yi yi dem di jëli affaire yi <laughs> jarul ñuy sonn Babacar ñun am nañ bopp tamit dañuy réfléchir lu tax demoo Casamance demal jëli suufu jàmbur Casamance bu dee mystique ñoo la ko dàq bu fekkee ay affaire booy rebelle yi rebelle yi génn foofu wàccal la léegi da ngay yow fajar fekk rey nañ ña fa ne woon ñëpp borom fetal yeeg ñëpp la ñuy seddal demal jëli suufu jàmbur yi Casamance danga xool ñi gën a néew doole nga dal seen kaw def yëfu bukki mais le fekk nga jël nga choisir Ndingler parce que Ndingler n'est pas loin de de de de Sédima Ndingler n'est loin de Dakar Ndingler c'est à quelques kilomètres de Dakar tey boo yónnee benn oto bu fekkee Casamance lay dem ñaata kilomètres lay daw essence bi lekk bi naan bi loolu yëpp c'est de c'est de l'argent transport bi c'est de l'argent les transports logistiques donc yow xam nga ni dem ba Casamance jëli fa ay pomme de terre di ko indiwaat ba Dakar yàqu xaj na ci mun na yàqu conservation bi conservation bi mun na bañ a mun na mun na bañ a baax wala dina pomme de terre yi am na yu mun a nëb ak yooyu mais tey jii jógee Sériment jël say oto camion ñu daw dem Ndingler tibb fa pomme de terre yi jël fa salaat bi yóbbu ko KFC ba nga jaxase ko sëb ginaar jaay loolu c'est facile donc c'est pour cela que tu as choisi Ndingler loolu bokk na ci lu tax nga choisir Ndingler am na ñu naan dafa am ay pétrole dafa am ok mun na nekk mais li tax Babacar choisir Ndingler c'est pour arrondir euh, financement bi c'est pour arrondir euh, frais yim nar a def parce que bu demoon Casamance c'est vrai suuf am na Casamance lu tax demul suuf mi ngi fes dell ak Saalum lu tax demul suuf mi ngi fees dell Tamba lu tax demul donc Babacar xam na bu baax pourquoi il a choisi dem foqati ay suuf yoo xam ne mbuur lañ ne xam na ko bu baax a baax a baax àll bi yëpp maa ngi ko romb àll bi yëpp vide mais lu tax jëloo àll boobu lu tax nga dem ba ci dëkk jàmbur foqati suuf si loolu journaliste waroon laaj laajuñu la ko malheureusement comme da ngeen di préparer question moom duñ la ko laaj romb suuf si yëpp nga ne yow bu ngeen di romb pour dem ci village Ndingler romb nga ay kilomètres ci suuf boo xam ni yow da jàpp ni kenn moomu ko waaye léegi lu tax taxawoo foofu jël ci ñi jaay la ko pour tu as choisi tu as choisi dem ba ci dëkk jàmbur jël jël suuf sa mais c'est domage quand même de toute façon ñun dinañ ci def sañu wàll dinañ defaat ay son nengaleer au delà freestyle dañuy def son nengaleer spécial dinañ def sax vidéo video nengaleer nengaleer wane àll bi tout waaw dinañ ko def nañ def documentaire nag waaw maa ngi ci nii nii nii nii nii maa ngi doon wax ak Mass Black Diamonds ñëpp xam nañ ni ku forox la ci affaire vidéo ñu ngi waxtaan jéem a def benn documentaire ci Ndingler dugal son bi muy daw ci suuf lépp ñu jël ko tasaare ko monde bi yëpp xam ñu def ko benn guerre internationale guerre international the revolution not will be televised révolution internationale ba ñëpp adduna bi yëpp ba pare sous-titré sous-titré ko def ko en français sous-titré ko en nangale ba adduna bi yëpp xam ni Ndingler ab benn bu ñu naan Babacar Ngom homme d'affaires moo ñëw jaay leen doole foqati seen suuf dinañ ko son dinañ ko vidéo te dinañ ko documentaire incha allah bàyyeeguñ noonu de di nga delloo suufu jàmbur yi de day yomb trop